ñetteelu nettali yàlla daan na nit ndax déggadeem déglu leen bu baax nettali yi te ngeen ñaan yàlla mu won leen lan la bëgg ngeen xam ko te def ko gannaaw nettali bu nekk am na ay laaj ngir dimbali leen ngeen xam mbir mi tey jëf li ngeen déglu saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem a tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen a wéy ci seen déglu